Euh, xew woo xam ne ni feet la ci mboolem jullit ñi di sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom tabaraka wa taala jagleel na ko ganaaw bu ñu defee jaamu yàlla gu am solo muy chehru ramadan al mubarak yàlla noonu sunu borom nangul ñun ñëpp. Euh, Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sunu yaakaar day wax ne bis bii kat bisu feet la ci mboolem jullit yépp fa haadal yawmu yawmul iid li kulli muminin muslimin muhsinin said nee na it bisub lekk la ak naan ak gore maanaam liberté daal nekk ci jàmm bisub bisub mbégte daal la yow mu aklin wa shurbin wa itq maanaam moo tax ñun tamit ñuy barkeelu ci loolu xam naa di ko waxaaleel sunu mbokki séeréer yëpp ak euh, fa tabarakallah njaayeen yi ak njoobeen yi ak ndaw ko ndaay ñëpp rek ñoo ngi leen di waxaaleel lii xam naa mi ngi ci seen xel moo tax ñu def ci ay bayit tuddee ko korité moo neex korite moo neex yàlla nan koy feete lu yàgg muy doon genn kenn du wéete korite moo neex yàlla nan koy feete lu yàgg muy doon genn kenn du wéete korite moo neex yàlla moo ko tànn mu nuy bégal mbégte moo ànd ak sunna korite moo neex day àndaale diplôme joxnu ko at me buur fegal la mbugalam korite moo neex boo xëyee ba jekki ba naan sa ndox mu sedd nag bay ndékki teg sa kafeek sa mburu teg sa fromage sur le plat ak fur wi ak sida orange wala nga teg warga wi ñuy wax jasmine wala sa meew ku nekk xam na la miin wala nga teg kenkliba mbaa lipton sëw mburu sarse ndambe mbaa mu yeb ton wala nga diw bër mbaa nga diw ca sokola mbaa lu la soob ku nekk yaa xam sa palaa day mel ne yow danga ngaa nelaw bay gént te moo nekkat lu am la dañ nam lënt korite yaa ñu dàqalug tabaski céet ak ngénte it jotuñ sa ndékki waxuma laak sa añ ba mbaa sa reer ba xew yépp yow yaa ci gënal séeréer ba xaaral ma noppi ndaw kondaa yi ñoom it tem ñu ne Seex Saalihu yaa ngi saalit kon maa ngi baale ak ñépp tey ñaan jéggal ci yéen bu leen ma fàtte ci ñaan waaw moom de fa tabarakallah dañ ko woy ngir mm, ñépp rek mu doon bisub mbégte wallaay bisub baalante ak ndax euh, koor dafa doon loo xam ne dafa am solo lool bu nu yàlla defalee tawféex ba ñu fekkee ko mu defal ñu tawféex ba nu woor ko ah loolu lu mat a sante suñu borom tabaraka wa taala la moo tax bis bii bëgguñ ci jullit boo xam da koy woyofal di ci bañ a békk ndax day mel ni yàlla dalaa jox taraanga te tërloo woo ko kon kenn ku nekk da ngaa war a békk da war a kontaan da ngaa war nekk ci jàmm sol ci lu rafet eh, di ci noos daal noos gu dagan gu gu dëppoo sunna kon kenn ku nekk wax dëgg yàlla loo jàppaloon sa morom rek na ko ko daldi bàyyi bokk na bokk na ci li ñuy gën a inspiré nag ci mbég mi mooy li ëpp ci jullit ñi tey jii lañu wori loolu tamit dafa doon lu ama am solo ndax bennoog jullit ñi dafa am solo lool ak jàmm ji ak mbég mi yàlla na suñ borom saxal ci loolu ñoo ngi ci jaar nag ci xikma bi fi muy àgg di ci baalu àq ñépp ñépp rek jullit yépp ñoo ngi leen di baalu àq di leen baal àq di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu boole ñu jéggal di leen ci ñaanal di ci ñaanal suñu bopp ñu bokk ay xéewal yu yaatoo yaatu ak bark yàlla ubbil ñu ay xéewal te saxal ñu ci siraatal mustaqim liñ doon jéem ci koor gi ci ak mbaax yàlla na faf wéy waaw yàlla buñ teggi suñu tànk ci lu baax ak ak njub ak sàkku tiyaabo ci darajay seexul xadiim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 in uridu illa al islaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh